xew man danaa ko wax. Seexu Taaboy ci koor gi. Seexu Taaboy ci koor gi Seexu Taaboy. Seexu Taaboy ci koor gi Seexu Taaboy. xoolal ana wa ñaamuuma. xoolal ma lay jaay ci koor gi. waaye sëñ Mbàkke ak Seexu yi ñoo koy jaayal waaye lu koy yàgg tax tax ay si daanañu. Patrice

yaa ngi laal sama loxo bi. waaw dañ bakk yàlla. ma xool ma xool. yow yow yow moo wóor ba pare ngay ngay képp sama loxo. waaw dégg waaw dégg. waaw. wañaan wañaan tey tey dañoo dàq. wañaan tey dañoo dàq. ay yow duñ jàppoon. xoolal dafa maa dàqoon xam nga ma daw lu sóori. après moo tax moo tax fan yii man xëyuma yow yow da ngay xëy. man bàyyi naa man bàyyi naa wañaan dafa soxor wañaan daa soxor. wañaan wañaan. dafa maa dafa maa pes pes dafa maa pes teel. yow da nga da nga wér ci daal daw. c'est ak maa mun taw léegi daw daw daw daw daw daw ba fi mu ne taw ma jàdd kay. yow yow yow yow yow yow lekk suuf suuf. xam nga xam nga lekk suuf baaxul. lekk yow yow lekk yow. xam nga damaa wóor waaye damay ñam kese rek. nu muy sax. suuf suuf lay saf suuf suuf suuf suuf bu weex lay saf suuf bu weex. te sama bés neex na de. ndax naa la naa la boole. yow yow mu lekk ma. naa la boole. moom damay wax sama yaay yow yaa yow yow mi yaa baal naa la dégg yow yow yow duñ dem si wañaan ñu ko baal ñu ah. yii Cheikh a moom heure bi day jaay ay nit ñu bari aywa nañ si wañaan ñu wax ko wax ko dañ kon nañu dem si wañaan wala dañu suñ ko ndogu nañ dem ci wañaan nangu ndogoom après ñu dem suñ ko di ndogu ñu am ndogu yu bëri bëri sa mënu maa xeex te daa guddi xam xamal leen ñu ndogu waaw nañ kon nañ dem ndogu ji ñu bàyyi wañaan ñu ñu dem ndogu ji ñu bàyyi wañaan su waxee lu tax xëyu leen nga wax ko ginnaaw suba la ñuy xëy wañaan wañaan dañoo dàq ginnaaw suba la ñuy xëyaat dégg nga ñu dem ni jaar ni jaar yow suñ kër nii la ba pare nga naan ni ñuy jaar yow ko yow ko xamatoo suñ kër ku njëkk ku njëkk ku njëkk ma ma te mooy bokk ci daje ko man li ma jotee ma yor sax ma jëndee ko ndox sama nit koy jaay